mbokk internet yi maa ngi leen nuyu di leen naan dal leen ak jàmm tey dañoo amaat mbégte bu baax baax dalal ci suñu plateau euh, ki nga xamante ne moom moo di euh, monsieur Guèye ñu gën kaa xam ci euh, turu Guèye Para ngir waxtaanee li nga xamante ne moom moo di politique ndaxte fan yii li nga xamante ne moom moo di langu politique bi yëngu na bu baax a baax surtout ma ak coow bi nga xamante ne moom moo topp ki nga xamante ne moom moo di président Ousmane Sonko mu tukkee ci li nga xamante ne moom moo di recours bi avocat am déposé woon fële ci tribunal grande instance bu Sor ngir sakku ñu daal di réintégrer président Ousmane Sonko ci liste électorale yi mu doon li nga xamante tribunal bu Ziguinchor euh, jël na ko ci ndogal di euh, daal di dogal pour président Ousmane Sonko mu daal di réintégrer liste électorale yi waaye ci beneen côté bi ñu gis ne euh, li nga xamante ne moom moo di avocat état yi nee nañu ñoom dañuy daal di def recours fi nga xamante ne moom moo di cour suprême ngir neenal dogal bi nga xamante ne moom moo tukkee ci tribunal bu Ziguinchor mu doon nag benn coow bi nga xamante ne ñaari langue politique yi sekk nañ ko muy maanaam avocat président ak ñi nga xamante ñoom ñoo di avocat avocat état yi loolu waral nag ñu fas ne waxtaanee ci loolu ak nga xamante ne moom moo di monsieur Guèye ndaxte bu weesoo euh, li nga xamante ne moo di statut ancien militaire bi euh, mu ngi tamit yëngu ci wàllum euh, politique monsieur Guèye maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay auzu billahi mina sheytaani rajim wa salaatu wa salaam ala ashrafil mursalin xaatimu nabi imaamul mursalin asbunallah wa ni'mal wakiilu Kéwoulo maa ngi leen di nuyu di la gërëm di la sant ci invité bi nga ma invité ñu war a wax fii man nag dama bokk ci parti politique bi ñu naan mouvement la voix du peuple qui di Moussa Seck jiite ko mu jël nag benn camarade de parti colonel Cheikh Tidiane Mbodj jiital ko ci li nga xam ne mooy alliance suqali suñu réew muy assure ñu def benn alliance boo xam ne nag dañu dem pour foqati li nga xam ne élection présidentielle tàbbi ci biir langue gi ñu nekk ci parrainage comme ñi ko ñëpp nekkee am nañu nag suñu récépissé de parti politique muy suñu droit ñu dugg nag fas yéene dugg ci langue politique yi. yéen si kuje bi ngeen bokk ci wàllum opposition bi tay mu am seen benn naataango bu nga xamante ne euh, ci opposition bi la bokk mooy di président Ousmane Sonko mu nekk ci ay xët-xët euh, moom euh, diggante moom ak li nga xamante moom moo di justice lu koy firnde mooy recours bi nga xamante ne moom la déposé woon jaaree ko ci ay avocaam ci tribunal bu Ziguinchor ba li nga xamante moom moo di yoon jox ko dëgg maanaam mu daal di dogal pour ñu réintégrer ko ci liste électorale yi déjà ban jàngat ngay def par rapport ak loolu. waaw

da nga cay nekk doo waat waaye sël avocat ak médecin ak nga ne tey damay takk der da ngay prêter serment da ngay waat ni li ngay def nii da nga koy def te yàlla tax dangay ngay àttee dëgg te dëgg rek tax alors li am Ziguinchor nag warul bett kenn man def naa ko sama ay sotti mën leen fu dëgg jore rek am na ñoo xam ne fu mu leen fekk fa leen di bàyyi ñuy du ñu félicité kii nga xam ne mooy juge juge bi du ñu ko ràng parce que il n'a dafa def liggéeyam li mu jàng. appliquer ko parce que man duma juge duma magistrat ko kóolu guñ ko wonu ba tek ko fofu te kan moo fa tek moy état donc état xam na ne kooku compétent la moo ñu tek ko jëluñu ma man ne ma kaay juge Ousmane Sonko kaay juge kaaw ndax al alkalisé mom bu demee ba wax ko ko mu sol robam bu ñuul c'est parce que dafa prêter serment comme ñeneen ñi ñeneen won bokul ay morom mom mu taxaw ne day bokk donc donc justice woné wanewaat na euh droit wanewaat na bopam égalité wanewaat na bopam démocratie aussi wanewaat na bopam am réew nak ni lay fonctionner gis nga élection ci xel mu dal lañ koy def ak tey mu dal ñun opposition lañu bok mais nangul nañ Ousmane Sonko tey yalla yàlla may na ko mbooloo moo ne wax deug yalla ku mu neex ak ku mu naqari tey bu rek wax ko balaa nga doon xam suba ñu laaj parrainage ñun ñu ngi dem fu nekk wut suñu parrain mais Ousmane Sonko ci benn bis matul sax benn bis en cinq heures de temps bu ko nexé mu baatre li nga xam moy mooy parrainage donc day bok wala du bok ñun ñu tok diko deugul mais da xam nañ ne mi ngi ci yoon te bu doon suñu sago mu bokk comme ñëpp ndax nag wax dëgg yàlla man ne Ousmane Sonko musuma ko gis euh, musuma toog ak moom musuma wax ak moom téléphone xaw ko ay militant xaw ko parce que bokkuma Pastef aussi mais damay politique te opposition bi ñoo ko bokk te loolu nang bañ bañ bañ nit nangul ne c'est le leader de l'opposition Ousmane Sonko même bu ñu ko dindi woon tey te du bokk ci élection yi tamit ay militants ñi ngi fi taxaw yoon seen carte électeur te mbooloo lañu mu takk bu dëgër ñu organiser wu te tey ku ñu song tamit bu la neexee mënuloo leen dara parce que ay militants yu déterminé lañ te dañuy voté mais esprit Ousmane Sonko nag mën nga dindi Ousmane Sonko mais li nekk ci xolu nit ñi mënoo ko dindi yàlla moo koy def fal yàlla moo koy fal mooy folli sénégalais yi nag ñu bu bu jote amee voté amee ñoom ñooy dem voté nañ ko bàyyi mu bokk moo gën ci ñun gën ci réew mi gën ci ñëpp bu ñu demee nag sénégalais yi nga xam ne ñoo yor seen carte ñooy seet candidat bu leen neex. ñu voteel ko. ñu daal ñu ngi suñu alliance jiital suñu colonel Mbodj. Hmm. musique Guèye am na ñu bëri ñu nga xamantene japp nañ ne li nga xamantene lool mo lool la juge Sambassi wane ci taxawaay bi nga xamantene mom la amone ci audience bi fay permettre li nga xamantene mom modi justice mu dal di jëlal benen élan parce que nee ñu bari en tout cas jàpp nañ ne li nga xamantene mom moom la juge euh, Sambassi fay doxalee dina may yeneen magistrat yu nga xamantene peut-être japp nañ ne ñoñu dañ leen di euh, corrompre wala dañ dafa am en tout cas pression bi ñu tek si moom ñu dal di am indépendance duñ ñu euh, sentirati benn pression mais bu ñuy nous dañuy un programme muy programme parce que boy politique bilan ngay politiquer eh, projet ngay politique esprit ngay politique aussi bokku na séparation entre justice et li nga l'exécutif président bu fi da nga dul am juge bi ak magistrat parce que mënoo jël un ministre des forces armées de de de de ministre de de la justice nga ne moom dafa am terrain politique boo xam ne fa la dëkk am zone am parti am ay militants am te moom mooy fal magistrat yi ñoom ñooy fal juge yi fu leen neex ñu fal fu ñu sulli mais loolu est-ce que justice boobu am na indépendant xel sax daf ko nanguwul certes noonu la ñu yàgg di dund mais am réew buy dem démocratie di dem dafay toll ba nga xamante ne. amna na yo xamne dañ ko wara changer délocaliser d' accord naa nag ñu dem ba nga xamantene rew day tollu fi nga xamantene dañuy am ay réforme yo xam dañ koy def par exemple mën na la jox ben anecdote nga taxaw nan ay étudiant PS étudiant APR étudiant Benno wala étudiant PASTEF lolou dafa wara dañ Sénégal enseignant PASTEF enseignant APR enseignant PS enseignant UM war dafa wara dañ ci rew mi képp ko xamne da nga nek ci appareil d' liggéey ci état da nga war a nekk koo xam ne état kese moo la war a neutre nga ñor ko di liggéeyal état te yàlla tax doo jël sa affaire di boo demee ba nga xam ne ne da bëgg sum ci langue politique bi war a féete opposition wala nga nekkal pouvoir jàppale ko dangay dindi sa statut employé d'état bi nga nekk parce que tey bokkoon na ci li nga xam ne mooy freiner état nga am foo far ndax boo amee foofar rek këyit gi nga xam ne ñëw na ci ki nga xam ne dafa la contre te faro nga nekk ci appareil d'état mën nga ñëw bloqué ko te Sénégal dara tardé lu ñu lu dul loolu fofu la bëggoon ñu ñu taxaw li nga doon wax sank léegi ni am solo baax ba parce que tay dañuy gis ne ay enseignants ñu nga xamante ne dañuy rakkal ñaamew ci benn euh, parti ñu naan enseignant wala réseau enseignant parti tel ou réseau enseignant parti tel am ay étudiants yu tamit nga xamante dañuy am ci seen biir ay kurel yi nga xamante ci ay parti lañ dëkk tay euh, li koy firnde mooy ba léegi université bi nga xamante université Cheikh bu Dakar tijjeegul parce que lu nga noté à campagne électorale joté wala say est-ce que comme ni nga ko euh, jotul nak ñu que li nga xamantene réseau enseignant parti socialiste wala réseau enseignant parti APR wala euh, gis parti bi nga ne li ëpp ay militaire lañu ay anciens militaires parti dañu am violence mais li ñu programme moy la discipline et l'ordre gis nga am réew discipline moo ko yor ak loolu discipline boobu yow mi nga xam ne yaa jiite yow yaa ko war a njëkkee ci say tànk bu amee koy sanctionné sa waa kër ngay njëkk sanctionné balaa nga naan population yi dinaa leen sanctionné ci nii wala ci naan gis nga am réew dëgg moo koy yor gis nga ni politique buy avancé réew mi di avancé dañu war a def ay réformes yoo xamante ne dañ koy teg ak ay jalons ñun bokk na ci suñu programme képp koo xam ne dèjà amati nga bac da ngay dugg armée bokk na ci suñu enseignant.

mais ça ne veut pas dire que état bi may liggéey tamit lu mu def rek dama koy cautionner état buy liggéey daf ci am tamit ay corps de contrôle yo xamantene ben autonomie amuñu ko parce que ñi leen di fal dañuy nekk ñoo xam ci appareil d'état la ñi nga xam ne ñoo war a saytu yenn euh, euh, yenn ONG yenn ñi war a saytu xaalisu état bi fu mu dugg ay OFNAC ay fu ay yenn euh, démembrement yooyu dañu war a nekk ñu neutre fu mel ne Sénat fu mel ne assemblée nationale dañ ko war a tëggaat defaat ci ay réformes yoo xam ne comme suñu parti ni ñu ko waxee déjà assemblée nationale képp koo xam ne am na pratique yoo xam ne defoo ko waroo ko doon un député balaa ngay nekk député dañu war a saytu say mbir xool ndax yow mosoo sàcc mosoo dubal kees mosoo dëpp ba ci ministre yi nga xamante ñu ngi leen fal ñu war a liggéey ci état jamonoy Senghor noonu la doon demee ministre bi nga xam ne yow mooy toog rek. xol benn ministre rek parce que am na mbooloo euh, madaxun wala am na ay nit yu nekk euh, fële naa ko jël dugal ko ci sama biir parce que bu koy dina am clientèle politique boo xam ne ñoo koy topp loolu moo yàq réew mi loolu moo yàq état képp koo xam ne da nga lay jël ñu la fal ci ay poste dañu war a xool ba xam ne say compétence avéré na ñu jël dugal ko ma ñu dugal poste boo xam ne poste politique lay doon ministre waru nekk loo xam ne dañ koy fal pour des responsabilités politiques de ministre de la santé nañ jël un médecin qui connaît mieux la santé ñu jox ko ko agriculture ñu jël un paysan baykat boo xam xam-xamam ingénieur en agricole la ñu jël ko jox ko ko justice bi nga xam mo ci nek ñu jël ko xam ku xam justice la un vrai magistrat ñu jël ci ben corps bo xam ñom ñoy xol di fal magistrat di folli di am sen secte ben ben kuréel bo xamante ay ñu kilifa yu maga maga mag mag par exemple ba jox la ben anecdote fu melni États-Unis sen congrès bi mais du ñëpp ñofay fay dugg congrès bi déjà pour commencer da ngay nek ku set wecc deuxièmement ko xam da ngay pratiquer pendant tant d'années ci sen service armé ba ba paré nga am ci ay lidiasa ba paré nga nek ko xam sa parcours ci àdduna dafa nek ku clean ko xam amul dara lu ñuul musuñu laa jiiñ viol musuñu laa jiiñ kees goo dëpp musuñu la jiiñ xaalis boo jël musuñu laa jénn yaqataan musuñu la jiiñ dara nit ko xamne da ngay set wet wet wet ñu diiw de buñ ko falé kenn du wax waye fal ko xamantene ya 5 ans ci ginaaw amul won dara ñu jek jek gis ko mu def R plus 10 kooku ku ne xam nga ne sàcc la ñu jël ko teg ko ci yoonu ci ci ci ci bopp mm-hmm. loolu dadul dëgg du yoon ñi ñuy fal nañ leen xool ñan la Mhm. li ngay wax ne am na solo baax a baax ndaxte comme euh, ni ngeen ko ni ko diggee euh, politique nag ay digge la booy def da campagne nag da ngay diggee da ngay ñu nga am xamante ne bu ñuy ñëw dañuy wax ne politique euh, sobre moom moo a ngi moom moo di nguur parce que nguur dafa neex nag est ce que boo leen ci jotee di ngeen mën a appliquer loolu ngeen di wax parce que tey gis nañu ay ay ñi nga xamante ay technocrate la jël leen dugal leen ci gouvernement bi ak li nga xamantene mom moy changement bi nga xamantene mom lañu lañ gis si ñoom. waa exemple bi du sori parce que nak ñun armée discipline ak euh, liguey lañu ñu xam bëgguma di wax ci discours du ci bolé armée parce que liguey moma bolé won ak ñom mais comme dañuy politique aussi ta fa lañ nekkoon ñun xamuñu politique te suñu parti bi nga xamne moy euh, mouvement bi nga xamne moy assure ak euh, parti bi nga xamne moy assure alliance suqali suñu rew ak mouvement la voix du peuple bi nga xamne Moussa Seck mo fa nekk tey jii tey dama lay jox exemple ban post nga fi gis ñu jël ko jox ko un militaire mu échoué musul am ministre de l' intérieur yi fi jaar yépp ñu jël ko jox ko Lamine Cissé ki nga xam ne jox nañ ko général euh, Mamadou euh, Mamadou Gaye ki euh, Lamine Cissé ak ki nga xam ne mooy général Niang mais liggéey nañ ci réew mi ci wàllu démocratie loo xam ne kenn musul ko gis te baat yu set wecc loxo yu set wicc la da am poste yoo xam ne militaire lañ ko war a jox fu mel ne santé

ak gëm dëgg ak gëm sa réew ak patriotisme parce que réew mu fi avancé rek tey da am esprit de patriotisme jël sa drapeau mu jaral la nga dee parce que fonction bi ñu nekkoon ñun dong ñoo nekk métier moo xam ne tey boo fa duggee ñu ne la kaay dee sa morom daanu fenn balu fetal bu subaa nga demaat fas yéene daanu pour moom sa jaral la ko kenn koo fi ñëw sa morom daanu bu subaa boo ne ko demal dem donc ñun patriotisme ak patriotisme su ñun la fekk baax su ñun la jeexee te boobu moom la ñuy appliqué ba bu suñu réew benn mandat rek ñu yonuñ ko ñu tegaat réew mi ci temps tegaat kenn ku ci nekk ñu case la cadré la ba nga xamante ne li ñuy njëkk nag lijjanti mooy képp koo xam ne sàcc nga alalu réew mi di nga ko génnee di ko teg waaw sàcc nag bi sàcc 2 millions ak bi sàcc 1 milliard loo sa taux de vol gën a bëri say sanction noonu la war a gën a bëree milliardaire boo ko sàccee ñu teg la sàcc milliard ki sàcc 1500 ñu teg ko valeur 1500 te it suñu code de procédure pénale bi ñu tëggaat ko ba nga xamante ne dina méngoo ak suñuy valeur sénégalais ak sénégal yi nga xam ñu wuñu en tant que africain te bañ a jël lépp tënk ko ci tubaab bi rek ñu sànni ñu ko ñu koy appliqué suñu te xam ne bokkuñu ay réalité culturelle socio culturelle mm-hmm. preuve yi ngeen da ngeen ngeen nyi loolu parce que gisoon nañ fi ñu nga xamante ne dressoon nañu ab liste ñu ay nit ñu ñi nga xamante ne waroon leen topp ñu gis ne ñaar lañ ci lañ ci topp ñeneen ñu si des yëpp dañoo daw dugg ci li nga xamante moo di gouvernement bi affaire bi daal di naxsaay mais dama bëgg ñu dellu si ci li nga xamante ne moo di affaire euh, président Ousmane Sonko ndaxte fu mu nekk nii bu fekkee ne euh, dëggal na conseil euh, bu fekkee ne cour suprême dëggal na li nga xamante ne moo tukkee ci tribunal grande instance bu Ziguinchor manam ñu rétablir président Ousmane Sonko ci liste électorale yi mbir mi dafay jël benn beneen tournure ndax tey yéen naa ngi préparé pour affronter ñi nga xamante ne ñun ñoo di euh, Pastef ci li nga xamante bi. waaw fi mu nekk nii comme ñun dañuy politique te opposition la ñu bokk ñu ngi ñaan yàlla sénégalais yi fal ñu wala ñu ñuy falit ñun ci la ñuy bokk ndax suñuy réforme ak suñu xam-xam bi nga xam ne yor nañ ko ci wàllu économie ci wàllu social ñu liggéey ci parce que réew mi nguur gi si sax sax laa wax. dafa am loo xam ne sénégalais yi moom lañ doon gën a xaar si ñoom te dañ ko lajje muy njàng ak santé am na pathologie yoo xam ne bu la dalee hôpital da ngay dee chaque jour ngeen gis si internet yi kenn ku ñu band tànk ba wala tafaween ba wala ndigg la ñu koy kettal ay 2500 800 ñëpp di ko seenu bugaan bii chaque maa ngi koy jaaree soxnaam de passage yàlla na ko yàlla yërëm chaque jour ngeen gis benn émission boo xam ne dañ koy def seen kër ñuy cotiser nit ñi ay 2500 ay 1000 francs di joxe ne ci réew moo xam ne 2023 on ne parle que des milliards

ci dimbal ak doole nga xam ne lekkuñu naanuñu sénégalais yi tey ñi gën a problème mooy lu ñu lekk ak pañe ménagère tey jii ci régime président Macky Sall fii la ñu gisee saaku ceeb saaku xoble soble di jar cinquante mille francs lu kenn musul xalaat ci histoire ñun naan développé def ñu nit ki balaa nga naan dafa développé développé day fekk nga lekk bu suur nit ki balaa nga ko naan nii naam day fekk bu feebaree bu demee hôpital faju am na ñoo xam ne tey euh, reen yi moo leen gën a rey

ak problème mu autosuffisance alimentaire ñom mom la ñuy yëkk combattre balaa ñuy wax développement tali ak route ak ay pistes té te la bokk nag ga fofu mom dañu féliciter Sénégal Macky Sall parce que liggéey na lu bëri ci côté yoy mais li pauvreté extrême trois repas yi famille yu koy assuré au Sénégal surtout banlieue bi ma dëkk di yëmbal buun benn masaar ben barak képp ko xamné né nga réew mi neex na tay rek sa fekk ñu yoral la sa dépense képp ko xamné réew mi neex na tay buñ la ko waxé sa parce que da nga yóbbu sa malade lamb sa poos dugal fa 100000 francs tey jii boo demee hôpital Thiaroye bi il faut ma citer ko wala dalal jàmm man am naa fa malade bu yàggul ana ko ànd ak Moussa Ndiaye nga ne ñu demal pharmacie nga toogaat 30 minutes ana ko ànd ak Moussa Diop ñun la mi ngi nii ñun la amal pharmacie ndoon rek lañ koy jàppee lépp luñ koy defal ñoom ñu ko génnee ci foofu pharmacie bi de bu structure sanitaire bu ne nga dum pharmacie moo nekk ci ginnaaw taxaw di jaay ay garab am na ñoo xam ne bu ñu leen bindalee yenn bi dañuy woote téléphone seen mbokk yi. ñuy dugal orange mën a ñuy dugal wéef kenn ku nekk li dugal ñuy dajale dajale dajale diko ko faj sinon bu ko fa bàyyee day dee moment boobu état baa ngi fii yor alal di dul jeex donc alal yi nga xam ne askan wi koy jënd di ko dugalaat li ñu naan créer l' économie participative di liggéeyal réew mi muy des ci réew mi mu loolu mooy sunu gaa travailler pour le peuple avec le peuple te li ñuy liggéeyal ci réew mi bu doon nekk ko bàyyi muy des réew mi du duggaat ci askan wi kon Kadhafi ba mu nekkee Libye li mu njëkk combattre li tax tubaab bi rey ko loolu ca la bokk parce que Libye population bi dem nañu ba li ñuy jëlee ci pétrole moom la ñuy fajee garab ni ñu ni ko fayoo Libye dem ba ndox kenn du ko fa fay courant kenn du ko fa fay pourtant ñun Sénégal am nañu loo xamante ne Libye sax amu ko lii di ñëw bu fekkee ne régime bi nii lay continuer ak bàyyi nañu ñuy jiite ñu kon 2024 bu ñu demee pétrole bi gaz bi yépp ñu duñ ci jëriñoo ci dara jën yaa ngi nii jaay nañu géej gi chinois ak yeneen licence de keccax gi nga xam ne ñun moo doon suñu keccax national ñi nga xam ne seen baadoo lañu seen mooy jotul seen ginnaaw mënu suñu jot ci gaz parce que kilo baa ngi ci 4500 yàpp nag ma ñëw foofu yàpp moom balaa nga koy lekk màggal Tuubaa jot wala gàmmu Tiwaawan wala tabaski jot nga lekk ci ba suur dafa am ñoo xam ne voie de disparition la ci yàpp boo leen xoolee seen i bëñ sax ñuy dox ni da xam ne ñi yàpp leen ni bëgg rey parce que fonde la ñuy añee moom la ñuy reere bu gudd jotee benn repas la ñuy assuré par jour may ngay heureusement leen wax naa ko ci fenn gars yi ni ndax tey ji kooku ñeex ñeexu may ga ak ay laxas rek la gars yi di lekk moo fa am Sénégal nag foofu la ñu toll moo tax may ga ak ñi nga xam ne dañu kii nañ leen fi bàyyi bu leen kenn laal parce que ñun yàpp ku ko fi jënd kilo bi 4500 euh, 5000 euh, ñëpp mënuñu ko lekk am na kër yoo xam ne keccax ga ñu songoon mënatuñ ko am bu gudd jotee nag nga jënd sa benn naare boutique yi sax ñoo koy jaay léegi boutique yi ñooy jaay mbuusu meew ak cere bu ñu ko jaayee nga yëngal ko ñu jox ko xale ñu naan ko booy yi gëree yi toog ci angal koñ ba semence baa nga ne xuus xale yi lu ñu agressé duñ ko mëkk mii dara waral ko lu pauvreté extrême ak xale yi amatuñu lu ñu dem nañu jéem lijjanti loo xam ne xale yi dinañ toog ci réew mi loolu moo gën Monsieur Guèye li nga xamantene mom modi moo di euh, bi nga xamantene mom moom moo dox diggante euh, avocat président Ousmane Sonko ak agent judiciaire de l'état ci cour suprême lañ koy mujjé di até ndax yow am nga yaakaar bu ñu eggee euh, cour suprême ki nga xamantene mom modi président Ousmane Sonko avocat am nañu am dëgg ci kaw li nga xamantene ne état bu fekk né dëgg nañ li nga xamantene mom la agent judiciaire de l'état wax ci communiqué bi nga xamantene mom la génné wax né li nga xamantene mom mo tuké ci dogal ci tribunal grande instance bu Ziguinchor état du ko du ko du ko daal du ko appliqué. man ñaar gëm naa ko. gëm naa justice te gëm naa ne ci justice am na ñoo xam ne la ñu waatoon ba ñuy nekk jeune ba tey dara du ko dindi dañoo suur démb tey doo ko dikk maletu xaalis boo ko joxoon du tere bu ñuy attee dañuy attee dëgg te yàlla tax te ñooñu ñu ngi fi ba léegi des personnes valeureuses yoo xam ne kenn mënu jënd seen conscience kenn mënu leen defal dara li ñu gëm dañ ko gëm parce que nit mën nga dindi ci lépp loo xamante ne koy parce que am na loo xam ne du ci état lañ koy jëlee da nga koy donn ci sa famille ndax gis nga fonction bi ngay liggéey da nga fay représenter sa famille kenn ku nekk nañ la yare éduquer rek fépp fooy dem am na ñoo xam def nañ ci yomb yar ak ma ak ragal yàlla goo xam ne ci justice ak médecine sax dara mënul tax ñu changer man nag gëm naa sama justice su réew gëm naa sama yoonu réew ba lépp lu ñu àttee man gëm naa ne dëgg la te am naa yaakaar ne. Ousmane Sonko vraiment danañ ko bàyyi mu bokk suñu leader nga xam ne day néew ci opposition bi ñu ànd ak moom nag dugg ci teen ak parce que nag campagne sans Ousmane Sonko neex ga mu waroon neex ak ambiance ba mu war a nag ñi ngi ak seen sonkorisation Sonko nam naa la ji mi ngi mel ni tulleeg mbale léegi sax boole nañ ci mbalax moo xam ne bokk ci woon xam nag mbalax Sonko nam naa la ji dañ koy boole mbalax mu diib ak baara xam ne mi ngi ca suuf loolu bokk ci woon waaye boole booy booy forme de lutte lañ mm-hmm. sa néeg tal sa lal naan sa lëwal ne Sonko na mën naa la daal di daaneel loolu kenn mënu ko tere waaw. ni nga ko waxee euh, noonu la ñu bëri ñu ngi naan euh, pour élection bi mën a neex fokk nga xamante ne moom moo di euh, président Ousmane Sonko mun a bokk ci nga xamante ne moo di jongante boo ko defee dina benn rivalité au moins bi nga xamante ne dinañu waxtaanee li nga xamante ne moom moo di waxtaan xam-xam waaye itam nañu gis ñi nga xamante ne peut-être ñoom ñoo bëgg doon suba ay président lan la ñuy proposer comme programme. man loolu laa gëm gis nga am réew.

bërki démb ñu taxaw ne carrément dëkk bi dafa métti bëgg ñu topp suñu chanson ñun ñi nga xam ne ñoo bokk ñun ñoo mën a taxaw ne dëkk bi dafa métti parce que ñun laalawuñu dara ak président Macky Sall ci wàllu euh, euh, euh, état dañ ci doon liggéey pare ci retraité dugg suñu langue pël la Sénégalais yi di lekk la ñuy lekk la ñuy naan mais nekkuñu koo xam dañu fal ministre wala ñu fal ñu yenn ndomba tànk ñu ut ko yenn poste de responsabilité état génn ba pare jëlaat say xeer di ko sànniwaat état kooku yàpp Sénégalais yi la te Sénégalais yi dofuñu xaw politique la wala déet parce que ñoom mën nañu bu ne dem ba ci biir ñu ne diw demal fële demal fële sànni may xeer bu ñu demee ba deuxième tour yéen ñëpp ngeen rassemblé waat ñu jiital suñu candidat bi ngeen dem bu dee boobu la tamit sénégalais jël nañ ko boobu sot marche pas xam nañ ko style boobu moom bu dee boobu la xëy bu fekkee ne tamit du boobu ngeen ñëw rek tàbb ci langue politique sénégalais ñoom ñoo yor seen carte danañ xool candidat bi idéal nekk fii toute façon buñu wax politique rupture lañu wax li fi nekkoon du fi dafay jógee té ñu mom suñu bop mom suñu indépendance judiciaire mom suñu indépendance su mom suñu économie alimentaire autosuffisance alimentaire def nak li nga xamné moy économie participative ak la régionalisation des industries ñun tay suñu programme phare lool daf ci bokk dëkk bu nekk doon nañ dem ba liggéey ko ba nga xamante ne xale yi dootuñu émigré sax dañoo Dakar exode rural bi day dañ kenn ku ci nekk ku melni Casamance lañuy ñuy liggéey ci jus de fruits ak aliments yi nga xamné fruits mi nga yaqku ci ñukoy tour ci àll yi mais war nañu mëna a ay produits yo xamante ne kenn dootu fa génn Casamance tay lu né mën nañ ko fa mëna am defaraat ko ba nga xamné képp ko xamné dëkk nga fa soxlawoo sax di ñëw Dakar bo démé Diourbel usine gerte yi ñu defaraat ko tas ko dem Louga nonu ki nga xamante moy mooy ñu defar ba nga ay société laitière yo xamante Sénégal day dem sax bay exporter mew keneen di ko jël ndax am nañ fi am nañu suuf am nañ lepp pêche bi ñu dem ba li nga xamné moy pisciculture di bay jën tollu nañ fa parce que comme géej gi yàqu te jaay nañ ko ay ñi nga xam ne ñoo ay occidentaux ay licence de pêche ñu jël ay euh, drapeau Sénégal diko ko utiliser di nax sa escroquerie boobu ñu arrêté ko ba géej gi wax dëgg yàlla balaa kenn di fi napp ñu jël ko suuf si nga xam ne tamit moo nekk Kédougou ñuy def li nga xam def ci attention ma ciy téyere seen alerte nañu moytu xeexu suuf te mom sa dëkk dëkk fa juddoo fa ay nit taxaw def ko pale di fa loger di fa lekk nga naan dund ko ba nga xamné ne li indi Israël ak Palestine lu mel non rek la parce que nek cim réew moom ko dëkk fa ba paré don fa mànjaan tok ci kaw miin door loolu xel sax da ko nangawul monsieur Guèye li ñu cëroon ci waxtu jeex na ma bàyyi rek bu fekkee amna benen appel bi ngay def ci walum sen parti politique waye tamit ak li nga xamante mom ngay tëjee jotaay bi. wa jotaay bi limu koy tëjee que bi sax France la koy wax que la France respecte les Africains et plus particulièrement les dirigeants africains depuis quelques années à chaque fois qu'on nous invite en France pour aller quelconque manifestation, pour aller représenter la Fédération des descendants des tirailleurs sénégalais dont je suis le président, il y a des tracasseries au niveau des visas. Et quand ils viennent chez nous, ils viennent comme au marché. On a écrit une lettre adressée au consul de Dakar, mais pas de réponse jusqu'à présent. On a écrit toutes les autorités pour aller en Lyon, participer euh, aux manifestations, euh, à cette manifestation du massacre de Châtelet. À Lyon, on, est, on nous a invités le 8 novembre prochaine, mais je ne crois pas d'y aller à cause du manque de respect que les autorités françaises qui se basent à Dakar par rapport à notre personne, ce n'est pas sérieux du tout. Et c'est malhonnête de sa part. Nous, on n'est pas des anti-français, mais que la France respecte encore euh, les Sénégalais, et plus particulièrement les autorités sénégalaises. Nous, on n'est pas là pour faire de l'immigration clandestine, pour aller <laughs> faire de l'aventure en France. On part juste pour représenter quelque chose qui représente 17 États donc je suis le président de cette euh, fédération, mais ça fait la troisième fois, si on nous invite, c'est parce que ce qu'on parle n'arrange pas du tout la France, parce qu'on parle de l'histoire des tirailleurs sénégalais, qui a tout donné à la France. Et la question fondamentale qu'on se pose, qu'est-ce que la France a fait pour ces tirailleurs sénégalais et ses descendants des tirailleurs sénégalais Nous voulons le visa pour se rendre en France et revenir juste pour 15 jours. Ça, se lance cet appel aux autorités françaises et sénégalaises de manière générale. Mmh. monsieur Guèye amoon nañu mbégte bu baax a baax daal di lay dalal ci suñu plateau bu Kéwoulo comme à chaque fois mbégte lay doon à chaque fois ñuy waxtaan ak yow ndaxte gis nañ ne saa yu sekk ak yow waxtaan rek waxtaan bu riche lay doon waxtaan bu bëri xam-xam lay doon ma lay jëfal bu baax a baax ci loolu. waa di gërëm nag suñu parti bi nga xam ne mooy mouvement la voix du peuple dirigé par le président Moussa Seck di gërëm ki nga xam ne mooy le président bi nga xam ne tey moo fi nekk tey ñu far ko yóbbu au muy mooy le colonel Cheikh Tidiane Mbodj bi nga xam ne moom mooy président mouvement assure bi nga assure ànd suqal suñu réew ak suñu coordonnateur Moustapha Dramé ku mel ne ñoom Jean Fall suñu grand yooyu nga xamante ne ay mag ñu baax lañu di jàppale parti bi di gërëmit suñu benn coordonnateur boo xam ne il est en Suisse Moustapha Moussa Kaba di quelqu'un bu baax di intégré ak ñi nga xam ne ñoo ne ci diaspora bi nekk États-Unis di bëggee ñi nga xam ne mooy assure ak mouvement la voix du peuple naan am jàmm politique ci jàmm lañ koy def ci xel mu dal ci paix ndekki ba suur reer añ ndekki jël sa naan sa euh, ataaya jël sa ngàddu guro jël sa carte électeur dem fekk ñi nga xam ne mooy assure sànni suqali suñu réew nga sànni fa sa carte loolu lañ bëgg ci njàmb ak salaam seet nag ki nga xam ne sénégalais fal nañ ko ñu ne kii moo falu ci jàmm ak salaam kenn bañ a sàcc kenn bañ a jaar ci suuf kenn bañ a rubuj asalaamualeykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu un peuple un but une fois mbokk internautes yi cant ak ngërëm ñenn leen baax a baax